Babacar Mbuub yaa ngi fi Babacar Mbuub Kebs Thiam dafa am émission bu ñu tuddee euh, diaspora maa daan dem mbuuba dem donc j'ai commencé à central décentral li ma bëgg mooy xale yi di dem di dem ba miin plateau yi man ma mën a reposer un peu euh, d'un repos bien mérité après 38 ans de combat sans congé voilà la réponse waaw maa waaw maa ngi doon wax euh, sànq rek ne jàmbaar gi muy woote des na jàmbaar comme ni ko boy plateau yi di waxee da ngay saaga taxaw nga jël pause pour assumer conséquence yi waaye jàmbaar doo saaga dugg sa oto ne lay daw ca gannaaw frontière alors lii nga ma wax loolu lañ ma waxoon quand les jeunes euh, euh, producteur de séries pour la première fois dans l'histoire de la cinématographie au Sénégal ñu defar fi benn film pornographique bu ñu wax cirque noir lu kenn mësul gis fa toroxul jigéen mën a yem waaye ba ñu yégée ne Jamra mu ngi defar plan ñu daw laxatu ji dem ngapparu <laughs> waaye dañu fàtte ne euh, du ma wax seen i secret commissaire Ali Kandé am na technique de localisation ci gàttal du ma wax naka lañ ko defee fa lañ leen fekk ne leen niip comme ni ko Idriss sekk di waxee foqet yóbbu alors Cheikh Ahmed Cissé nag mënul të la police toutes les polices du Sénégal c'est pas possible alors euh, fa laa mën a yem du ma joxe ay détails waaye daal incha allah kenn mënul saaga yàlla ne dara duma ci fekk c'est pas possible kenn mënul xotti war ma alxuraan ne dara du ci fekk c'est pas possible kenn mënul jóg ne yàlla taaxuraankat la yàlla day lépp jàpp orma alxuraan xotti ko toroxol ko ba pare ne dara duma ci fekk kon day ma xam ne Euh, dana bari ay jullit yu bari yu démissionné <laughs> waaye loolu waxin la rek voilà kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant seen teewaay incha allah euh, dans très peu de temps di ngeen dégg des développements de ce de cette malheureuse affaire je dis bien malheureuse affaire parce que c'est une perte de temps il fait perdre du temps à tout parce que yéen yéen ngi mu ngi leen naroon fekk ci yeneen rawatina dëkk baa ngi waajal ay jongante euh, qui sont des élections qui sont lourdes d'incertitudes sans compter dans les deux camps ça bouge euh, yooyu yëpp si ay priorité yi la am na ñu nekk tam ci kaso yi man seeti woon naa sama ñaari jarbaat euh, Cheikh Oumar Diagne ak euh, Abdou Karim Gueye pour lu leen defal leen donc y a d'autres priorités kon Cheikh kii Chamisi amel na ñëpp ak parce que yéen a ngi ni dog seen ak ñëw fii kon nag dog seen soxla ñëw kon nag yàlla na leen yàlla fay seen taxawaay hmm. ñaan suñu borom mu sàmmal ñu réew mi ñaan suñu borom mu lafal Sénégal sayta eh, eh, cat surtout na musal Sénégal ci lobby yi ndax lobby yi nekk ci ginnaaw Cheikh Ahmed Cissé di def la promotion des LGBT lobby yi nekk ci ginnaaw Ousseynou Seck alias Akhenaton infiltrer les institutions les ONG les partis politiques pour détruire leen ak jàllale ay message satanique lobby yooyu bu leen freiné wul la république est en danger waaye nag dëkk bu tedd bi nga xam ne fii la si Ahmadou Bamba tëdd Seydil Hadji Malick Sy Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass Seydina Limaamu Laay dëkk boobu ku ko bëgg a toroxal yaay torox incha allah yal na yàlla def jàmm ci réew mi te làq ñu Sénégal fu yàq yeegul wasalaamualeykum wa rahmatullah